te TDK seen agence voyage Touba Daarul Xuddus ubbil nañu leen place bu mucc ay fii ci Mbuur encare magasin Talla li ci dàqati nag mooy mën ngeen faa daggee seen assurance ak billet avion ci bépp destination vol spécial ngeen di fa fekk lépp lu aju ci wàllu multi service mu yónnee wala jot xaalis ci biir réew mi ak bitim réew ci anam gu gaaw te wér lool da ngeen a yittewoo photo mini photocopie impression yu leer naññ carte visite carte membre yépp jàppandi na fii ci seen agence voyage Touba Daarul Xuddus fekk leen nu fii ci Mbour oncat magasin Talla wala ngeen woonu ci 77 433 08 51 wala 76 285 43 52 agence de voyage Touba Daarul Xuddus ànd ak multi service bu mucc ayib yaru nañ yow yiw yéwén mën na liggéey ku fa ñëw it ñu faj sa aaju ci teggiin wér na wóor gaaw na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 mbokk yi safoo di ànd ak fo Info asalaamaaleykum ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal dellu si di ànd ak yéen uh, ci xibaaru digg bëccëg gi tey jëlee ci alxames ci dëppoo ak juróom-ñaari fan ci weeru novembre ci atum deux mille vingt quatre ñu koy doore ak euh, mbirum kile di Amet Ndoye Amet Ndoye bi nga xam ni tey jëlee ci euh, tribunal des flagrants délits bu Dakar ñoom rejeté nañ l' exception bi nga xamante ni bii de exception de nullité euh, bi nga xam ni ñi di ay awakaam daar doon nañ koy dugal mu mel ni kon chroniqueur bi lee di Amet Ndoye chroniqueur bu seen TV moom dinañ ko àttee fukki fan ak ñaar ci weeru novembre bi ñu jëm moom nag lees koy toppe a bokk na ci défaut de permis mooy permis boo xam ni baaxul waaye blessure involontaire gaañ nit ki te teyu ko waaye kay waaye tamit lii di faux et usage de faux fin gi ñu nemmeeku ci wàllu campagne électorale bile mu mel ni kon coow li nga xam ne moo doxoon ci diggante ñi ñile di farandoy Abass Fall ak kile di Barthélémy Diaz mu mel ni enquête bi am mi ngi dox ndànk ndànk ak ñaar ñoo xam ni déggul nañ déglu nañ leen fële ca section de recherche ni ki démb rek ñooñu le sax ci convocation lañ leen defaloon wujj nañ tontu nañu ci ay laaj ñu daal leen ni bàyyiwaat ñu ñibbi si seen kër ñu fàttali ni ñaar ñooñu ñoo déglu waaye dégluwaat nañ leen ñu amal lu ne di gendarmerie yu section de recherche ñuy fàttali nag jàppante boo xam ni xeex la moo doxoon ci diggante euh, kile di euh, ñooñi Abbas Fall ak ñooñi Barthélémy Diaz moom moo waral ñuy def ci ab gëstu ñi li euh, enquête bi nag mu mel ni kon waa parquet ci ndigalu procureur de la république ñoom ñoo ko santaane ngir daal ñu indi ak leeraange ci li nga xam ni moom moo xewoon ci diggante ñaari kuréel yooyu le Ah, fële ci université Cheikh Anta Diop tàng jër la def tey jëlee ci suba gi ak euh, dongo yi nga xam ne dañoo bëggoon a bloqué yenn ci ay xàll yi nga xam ne dañoo romb boobu boobule université li ko waraloon nag mooy dañoo bëgg ñu fay leen seen i bourse complet maanaam mu mat sëkk bourse yi nga xam ni dañ ko dagg euh, wàññi ko ñu fay leen ko ba mu jeex tàkk loolu la ñu bëggoon mu mel ne kon jàppante boobu euh, nemi ko woon nañ ko mu mel ne ndongo yooyu sax di étudiants yi ñu ngi doon sànni ay xeer ñi li di way takk der yi doon leen dellu li nga xam ne moom mooy ay gaz lacrymogène ngir daal tas euh, seen foule boobule jamono jilee ñuy waajale lii des élections falum député yi direction générale des élections mi ngi def kem kattanam ngir rek askan wi dem jëli seen i carte d'électeur ci mboolem bureau yi nga xam ni ne ñu nekk ci gox yi ak gox goxaan ci réew bu Sénégal waaye nag donte ni ay jumtukaay yëpp yu ñu génnee ñoom direction des élections moom direction générale des élections mi nga xam ne mi ngi soññ di ñaax ñi di askan wi ngir ñu dem jëli seeni i carte ba léegi wax ni xayma bi defes na ko lu toll rek ah, ci ñaari téeméeri junni ah, ñaari téeméeri junni ak juróom-benn fukk ak ñeent yu tegal ah, ñetti téeméer ak ñeent fukk ci ay carte ba léegi ñu ngi wéy di desandi ci bureau yi mu mel ni kon ñi directeur direction général des élections mi ngi sax jàllale ay message ay nataal ak spot ci télévision yi ak rajo yi ngir ñaax askan wi ngir ñu dem jëli li nga xam ni moom mooy seeni carte électeur laataa ñu àgg ci app bi ñu leen dëgmaloon ngir mu mën caa yem muy fukki fan ak juróom weeru novembre ci atum Euh, kii di njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ni ki tey jile euh, ci suba gi rek mi ngi woon foofu ca Grand Théâtre ngir euh, ñuy ubbi li di biennale de Dakar la leen ko waxee léegi rek ci li nga xamante ni bi rek moom moo soxal ubbite bi ñuy doon amal tey jii muy tàmbali biennale de Dakar kii la di njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dama nga woon sa Grand Théâtre bi ñu duppee kii di du Ndiaye Coumba Rose ngir daal di tàmbali boobule ngir daal ubbi boobule sira boobule euh, biennale mu mel ni kon fukkeelu yoon ak juróom ñu koy amal ci euh, réew bu ndakaaru mu mel ni nag euh, bu état bu Sénégal daan nay dindi wala daan jukki ci gafakaam lu toll rek ci benn milliard yu tegal téeméer juróomi téeméeri million ngir daal ñu daal di amal boobule xumbu mu mel ni kon secteur privé bu Sénégal ñoom lu toll rek ci deux cent millions daan nañ koy jukki mu mel ni kon kile di jëruñ di lu jëm ci wàllu ndaw yi ak sport ak li nga xam ne mooy caada di Khady Diène Gaye moom moo xamle lu ni mel mu mel ni nag boobale eh, biennale ñu ngi ko jàppoon sax eh, fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai eh, ak jàpp fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin ci atum 2024 waaye mujj gi dañ ko puusoon ginnaaw càkkuteefu jëwriñ ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu ndaw yi caada ak li nga xam mooy sport ba tey jii di alxemes juróom-ñaari fan ci weeru novembre mu war a jeex juróom kii lee di Mamina Daffé euh, di euh, doonoon coordinateur euh, bu programme des domaines agricoles communautaires ñu koy wax PRODAC moom ci boppam teg nañ ko loxo daal di koy def garde à vue ñi amal lu ne mel di division des investigations criminelles mu ne kon loolu démb la xew ci àllarba ji rek dëppoo ak juróom-benn fan ci yoon novembre ci atum deux mille vingt quatre mu mel ni kon càkkutéefu parquet bu pôle judiciaire financier moom la ñoom ñoo santaane lu ne mel moom nag les koy topp. jàppee bokk na ci euh, foo et usage de faux ak li ñu woowee wàllu njublang euh, ci li nga xam ne moo soxal moomeelu askan wi mu mel ni kon euh, xam na xëtu yëglekaay boo xam ne sax mooy libération daan nay dellu siwaat ci benn société écran lañ ko tuddee boo xam ne mi ngi ci biir mafia boobule mu mel ni kon moom mi nga xam ne moom mooy Mamina Daffé daal di jóge woon fi nga xam ne rek mooy Sierra Leone kon daal nañ koy teg loxo am na keneen koo xamante ni bii rek moom Mamina Daffé sax wax nañ dañ ko mujj rawale wala boog dañ ko mujj yóbbu hôpital ginnaaw bu mu waxee ni ci yaramam ah, sutante am na ci keneen koo xamante ni bi rek mooy Ibrahima Cissé ah, di ab xaritam moom it jiite ah, société Tida daal nañ koy tudd ci wàllu guni mel ñuy fàttali ni scandale dëgg lañ nemmiku ci Prodac bu jéggi dayo sax toll ci benn milliard yu tegal rek ñetti téeméeri million ci xaalisu franc CFA am na tamit ay faux document yoo xamante ne bi rek toll na ci ñaar téeméer ci ay million francs CFA yoo xam ni ki lee di euh, rakk ci Souleymane lu Diop moom euh, ñu ngi ko euh, tudd ci wàllu gu mel ñaari woto yoo xam ne dañ ko luyee lu tol rek ci fanweer ak juróom-ñaar ci ay millions loo xamante ni bi rek ki di ministre bu Ablaye di ministre Ablaye Diop. moom it euh, daanaka euh, moom it euh, tuddees na ko ci mu mel kon reddition des comptes ci mbirum ci mbirum vingt neuf milliards yi kon tàmbali na ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent yi ñu doon laam-laami ci coowal Prodac ak ki nga xam ni moom fi doon noon jawriñ gi di Mame Mbaye Niang moom ñu tudd ko ci l' inspection l' inspection générale des finances muy IGF. moom ci boppam moo déclenché ab enquête boobule euh, dossier euh, daañu ci dellu ñu wax ci wàllu exportation gerte eh, ci réew bu Sénégal ajandi nañ ko loolu la jëriñ ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu mbay mi daal di xamle laata ñuy xóotal ci benn ci xibaar boobu boobule eh, ñu daal leen di jox benn partenaire bu Mouhalim Info eh, muy société Shinam technologie di yëngu ci wàllu médecine traditionnelle chinoise mu mel kon képp koo xam ne bëgg ngaa fajulaal traitement yoo xam ni 100 pour cent bio la mën ngaa jokkoo ak madame Bousso téléphone 77 336.

ba ci euh, Ziguinchor ak euh, fële euh, ca Ndakaaru niñ leen ko waxee léegi rek ci li soxal wàllu génne gerte gi ci réew bu Sénégal mu mel ni dogal bu ni mel jëw jëwriñ juñ dénk lépp lu jëm ci wàllu mbay mi moom moo ko xamle mu lool sax dina tàmbali fukki fan ak juróom ci yoru novembre ci atum 2024 mu mel ni kon moom moom boobu leen dogal am na ñoo xamante ni bi rek daan nañuy lànk ba tëdd ci suuf rawatina ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu mbay te nekk ci bassin arachidier bokk na ci clé di Cheikh Tidiane Cissé di secrétaire général bu bonn ci organisation yi yëngu ci wàllu mbay moom nag nee na euh, li dogal bu ne mel jëwrin ji laataa ma ko jër waroon na waxtaan ak ñoom waxtaan ñi yëngu ci wàllu mbay mi ndax daanaka rek am na ñaar référentiel yoo xam ni bu ko yëroon rek dogal bu ne mel du ko teer a jël ndax ñi le di chinois yi daanaka ñi baykat yi dañoo gis seen bopp ci njëg gi ni ñu ko doon jëndee di ko yóbbu fële ca bitim réew te Sonacos mi nga xam ni moom mooy jënd lii di gi di def production bi daanaka euh, jumtukaay yu ci war dëgg-dëgg amee su ko euh, kon te moom ko sax day wëlbatiku di jaay euh, yile di yenn ci gerte yi nga xam ne jot na ko jënd moo ñu des ba tey ci clé di leader bu Pastef Ousmane Sonko fële ci diwaanu Matam la yëkkatee ay kaddu yoo xamante ni bi rek ci kanamu ay militam ak ñenn ñoo xam ne bokk nañ ci kàngami Pastef yi mu mel ni kon ci tàccu goo xam ne xumb na lool sax moom la di Ousmane Sonko di xam ne ni daanaka kon li ñuy woowee euh, transfert d'électeurs maanaam jëli ay électeurs yoo xam ne ñi ngi nekk euh, feneen wala ña nga ña nga fekk baax feneen ñu indi leen ci diwaanu maatam ngir daal la ñu mën fi woote loolu nag dakk na euh, ci élection ren yi loolu du mën a am élection yu jaar ci yoon la ñuy am élection yoo xamante ni bii mën naa wax ni leeraange gi sax mësta am ci ay élection législative kon dànkaafu na bu baax a baax ñi nga xamante ni bi rek ñoo daan wuuti ay yeneen électeurs ci yeneen gox yoo xam ne dañ Matam yooyu di kàddu kile di Ousmane Sonko. ñu wax ci kile di mbirum aji Mbergane Kanouté li nga xam ni député la woon ci coalition Benno Bokk Yaakaar moom nag daal nay jël li nga xam mooy dogal Euh, daal ni day jàppale liste bu fu moom it euh, ci élection falum député yi war a am fukki fan ak juróom-ñaar euh, ci weeru novembre bi ñu jëm dogal lu ni mel nag mi ngi ko jël ni ki démb rek ci kanamu ki li nga xam ne rek moo di Birame Souleye Diop ñuy fàttali ni ki di Adji Mbaye Gane Kanouté doonoon na ci ñi nga xam ni daawuñu may dara ki nga xam ne nag moom moo di Ousmane Sonko di njiital Pastef kile di njiital coalition Pastef di Ousmane Sonko daanaka mayul dara kile di Farba ngoom ginnaaw bi mu jaaxee fële ca añam moom la di Ousmane Sonko yëkkati ay kàddu sax jagleel ko kile di uh, ba ngoom mu ni dégg naa am na kenn koo xam daal mi ngi yor malatam ci loxoom di wër di joxe uh, ay koppar lu toll ci juróom fukki million jàpp juróom-ñett million mu mel ni boobu la xaalis yëpp uh, mënees naa wax na xaalis bu ñu lubal la waaye nag na jàpp ni bi mooy campagne bu mujj. Euh, ci euh, wàllu di doon candidat euh, ci diwaanu Agnam mu mel ni nag moom mi nga xam ni rek wàllu politique rek moo ko dugal ci mu nekk ci yuqu état bu Sénégal ak président boo xamante ni bi rek moom moo ko doon yombal li nga ni bi rek moo ko doon yombal mbiri yi de moom Agnam daanaka mérité woon na keneen koo xamante ni bi rek wute na ak clé di di di Farba Ngom maanaam tuddul turam nag waaye nag junju doy na borom xel koo xam ne amul benn. dayoo euh, daal di sóob loxoom ci ne moo soxal wàllu mafia lañ ko mën a tuddee muy kuréel guy def ñaaw ñaawteef di ko jëmale ci caxat caxatee suuf ak wàllu koom-koom li nga xam ni yóbbu na réewu Sénégal mu daal di ndërmelu euh, ci wàllu koom-koom mu mel ni kon euh, yooyu ay kaddu la yoo xamante ni bi Ousmane Sonko na ko foofu ci mu mel ni kon añaam noppi na dëgg ngir di sóobu ci ak coppite gu mat sëkk goo xam ni dara mënu ko taxa dara mënu leen taxa deltu gannaaw fële ca hôpital Albert Royal la ñuy wax ak ay gone yoo xam ne jamono jile dañoo bëgg a faju te suñu ku leen fàcce mu mel ni yooyu la xibaar sax am na ci kenn ñenn ci ay wayjuru ndong wayjuru xale yoo xam ni ñoo ko jot a xam le bokk na ci kenn koo xam ni dafa demoon boobu ca boobule hôpital rek ngir eh, ñu fajal ko doomam bu jigéen bi lee nga xam ne ñaari at rek la am amoon jafe-jafe eh, ci kaddu mu mel ni kon moom waroon def opération sax si lañ ko xamale ni jamono jile hôpital bi dañoo nekk ci grève mu mel ni kon boobu la opération sax bu ñu taxawul dëgg-dëgg kile di doomam mën na faa joxe ñàkk li nga xam ne moom moo di kàddoom mbir moomu le nag daanaka rek ñu koy wax muy grève boo xam ni ñi nga xam ne ñoo yëgu ci wàllu wàllu paramédical ñoom ci boppam ñoom ñoo ñoom ñoo amal boobu la grève li ko waral nag dañoo bëggoon ñu yokkal leen seen ak payoor payoor yi nag ñi leen di wax conseil d'administration bi dañoo mujj lànk lu ñu mel ndax daanaka rek mënuñoo yokk yooyu la moo tax nag euh, personnel ba jamono ji nekk ci ab grève boo xamante ni bi rek kenn xamul euh, fu muy euh, yam ndax bu ñu yokkee seen payor mën naa jural li di hôpital bi daal di ndërmeeru loolu ñu xam ne ñi leen di conseil d'administration ba installation de membres de la commission de validation des entreprises de presse boobu les installations kon daat nañ koy taxawal xamees na ña bokk boobu les commission nag ñu sant leen ngir ñu war saytu li Euh, dossier maanaam ñi jotoon na enregistré seen déclaration euh, ci euh, plateforme bi nga xam ni ministre bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu communication ak télécommunication ak numérique jotoon na ko ubbi kon ñu jàpp ni boobu la commission nag lu toll ci juróom-ñaari membre la am ñooñu ñoo war a saytu ñi nga xam ne ñoo def seen déclaration ci plateforme boobu li mu mel ni nag xamees na ni dëgg-dëgg jamono jile ñoom dañuy sukkandiku rek ci li nga xamante ni bi mooy ñi nga xam ni déclaré wu nañ ba noppi daal di tënku nag ci li nga xam ne mooy code euh, de la euh, presse euh, ak li nga xamante ni bii rek moom mooy cay say caytu bu baax ba xam dossier yi ñu dugal yëpp baax naam am déet laataa ñu koy valider mu mel ni nag buñ jotee ci xibaar yoo xamante ni bii rek kile di kile di Mouhamed Seck di directeur de cabinet bu ministre bi ñu dénk lépp jëm jëm ci wàllu communication télécommunication ak numérique jot na ko xamle kon lu toll rek ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci ci ay entreprise euh, euh, ci ay entreprise de presse jot nañu inscrire wu ci li nga xam ne mooy boobule plateforme Euh, ki lay di Amadou Ba jiite euh, coalition jàmm ak njariñ fële ca diwaanu Fatick euh, moom it mayul dara ki nga xam ne rek moom moo di Ousmane Sonko ak ki lay di Bassirou Diomaye Diakhar fay mu mel ni nag song na bu baax régime bi le mu mel ni kon mbir mi du ay wax toog muy dox jeex na fi waaye wax muy dox daanaka moom it dafay jeex loolu la xam ne moom mi leen di mu mel ni kon ŋàññi gi ñu doon ŋàññi ñoom régime bi fi nekk jamono jile ci système bi di wane ñoom ay anti système lañu ñooñu ñoom ñoo gën a ñoo gën a yées sax li ñu woowee eh, système loolu la xam le kile di Amadou Ba fële ca diwaanu Fatick muy sàkku ci ñoom ñu wooteel coalition jàmm ak njariñ bu ko defee ñoom nag ñu mën a tegaat réew bu Sénégal ci xàll wi gën mbokk yi doon ànd ñun ci Mouhalim Info lii lañ leen indiloon ci xibaaru digg bëccëg gi di leen bàyyi ak Serigne mo Serigne Mouhamadou Cissé Mouhalim mu ànd ak ci xibaar yi bitim réew jërë ngeen jëf